aw tukki nemmeeku bu mu amal ci réewum Nigéria njiitu réew mu Sénégal Bassirou Diomaye fay di dem ci beneen dëkk bu mag bu nekk ci communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ni Nigéria gana tamit am taxawaay gu dëgër ci biir CEDEAO ba tax na am na solo lool ngir njiitu réew mu Sénégal gën a mën a rataxal diggante Dakar ak Accra mu di diggante bi nga xam ne ni boobu ba léegi ñoo ngi ci amal ab lëkkaloo bu am solo. naam tuur bi sax amul dara lu mu jotal ci taarix empiir bu Ghana bi nga xam ne ni soninke yu nekk ci diggante Sénégal ak Niger ñoom ñoo ko sancoon waaye Côte de l'Or ba woon dafa yàgg sàmm xaritoo bi nga xam ne ni moom moo jaar ci digganteem ak Sénégal loole naam ñaari njiit yi nga xam ne ni ñoom ñoo jiite yile réew mu di Kwame Nkrumah ak Léopold Sédar Senghor déggoo ñu woon kàddu ci ni nga xam ne ni moom la ñuy doxalee intégration africaine waaye Bassirou Diomaye Diakhar fay ak naataangoomam bi di Nana Akufo-Addo mën nañoo waxtaan ñoom ba bokk benn kàddu ci nan la ñuy def ba boole réew yi nga xam ne ni ñoom ñoo ne ci dëndub Afrique ngir ñu doon benn waaye tamit bi lépp tëkkib nemmeeku mën naa tax ba ñu rataxal diggante ñaari réew yi mu di lëkkaloo bi nga xam ne ni mën nañ koo lal ci wàllum pétrole ak gaz ndax réewum Sénégal bi nga xam ne ni mu ngi waaj a tàmbali exploitation pétrole ak gaz am am na lu bëre li nga xam ne ni mën na koo jàng ci wetu réewum Ghana mi nga xam ne ni door na moom exploitation pétrole bu yàgg bi lépp lëkkaloo mën nañ koo lal it ci yeneen secteurs yu ci mel ni mbéy mi napp gi waaye tamit ci industrialisation mi nga xam ne ni réew réewum Ghana am na ci xarañ tef bu mag ñaari réew yi bokk it jafe yi nga xam ne ni moom la ñuy jànkoonteel ci wàllum napp gi rawatina gaal yi di bàyyeekoo bitim réew di ñëw nàpp ci suñuy géej loolu day firndeel rek ni ña nga xam ne ni ñoo bokk feebar ñoo gën a soxla waxtaan ci seen biir.